That was his fault. Sa kos baax na de. Yaa ngi si jàmm. Yaa ngi si jàmm. non ba xaaral ñaa bu ndaw xaaral ñaa nuyu nañu. waaw maa lay fay bu baax. si lan nga nekk. waaw borom daaw. tey kos ngeen naan sa adversaire ñoom jël nañ ko léegi. ñu tax xale bi nga jógee ak suñu jógee. am na ku nekk ku mu war a mu kooku ne ma laaj ñaawul mag la. waaw dëgg la moom suñu mag la amalee amul gàllankoor ñu war a dara lamb moo ñu boole contrat may na ma sens waaw bëri naa juum naa. lumière lumière li ma ñëwaat trois semaines heure xam naa ne ma daan. dama góorgóorlu waat entraîné waat jégalu sama supporter bu baax. Mhm. waaw man mhm. yëpp làmb la man sama làmb fu ma toll nii. Mhm. ñu ngi koy bëri combat bu yomb. su ma daanoon su ma daanoon zéro boo ma jëlee lay bëri. waaw. ñu ne soo laajte woon doo gis moom. non làmb la rek ñu ngi dépassé làmb incha allah. ani béykat Bikaay mi ngi si waaw mi ngi si waaw. mi ngi si jàmm mi ngi si waaw. jaajëf jàmm bu baax. waajal weeru koor gi rek. waajal lan. weeru koor gi. weeru koor gi. waaw. waaw ci koor la ñuy dugg de. waaye leneen la. borom géej waaye ngeen ni borom amoo 4 ba amoo 6. yaa ngi maa ngi nii. Ndiago lay wax sa adversaire. waaw sama adversaire di ko ñaanal jàmm rek. waaw di ñaan yàlla. waaw Sénégal am jàmm rek jàpp ko du ma ko daan ko xool leneen. kër ga de moo am booy jaxaw booy jaxaw daa jóge ci de. waaw ah, mais si defet ah. man maa gën a fanaanoo mer fu man mi a préparé cinq mois combat ba xaw a xam nu mu demee. Hmm. waaw man su ma ñëwee man maa gën a xaw am man maa gën a fanaan fanaanoo mer fu mille fois. ah billaay wallaay wa taalaay. booy waaw booy jaxaw nee na nee na six points yi moom da li ma lay xamal li ma koy xamal mooy. balaa ngaa dugg ci kalaaf bi si defet nga jóge dugg si kalaaf bi ubbee ko si defet da ngay si defet yow yaay saraxu kalaaf ah yow bi daw combat bi passé ah, ah gars yi nee na ngaa daw de nee na ngaa daw combat bi de moo la gën a xam daw ma loolu sama ginnaaw lañ koy wax ah. nga moom la ko waxal mu ma wax duuru ko waaw nee na daa wax yow ba nga daw combat ah, na <laughs> yow Doudou xam nga ni yow <laughs> yàpp ñëpp soxla. réew mi réew mi nga war a affronter. réew ma réew ma <laughs> réew mi ci boppam. yow réew mi nga war a affronter yàpp ñëpp soxla. sama combat ak yow nag instant yi nii gars yi pousse nañ ko mais du yàqu de. day gën a métti a kii rek. billaahi bii yaa ma gën a xam. ba ci kaw a kaw ngeen di fekkante. non yow xam nga Doudou ma ko fekk dama koy ren dem sama yoon coow lee fi ne rek. mooy booy jaxaw ma de. am na neuf KO dina encaissé neuf KO bu soobee yàlla. waaw loolu moom waaw bu yowoo na ko xam. instant bi xam nga rek gaynde gi moom suñu toll mer la fanaanoo quoi. moom de nee na moo bëgg ma di wax sax cat gi dama toppaat. ndax gis nga combat bi paas damaa yëngal dëkk bi yëpp ñëw fii gaañ affaire yi demee nii quoi. soma bi daal soma bu soobee yàlla moom bul xalaat quoi. Mhm. dañuy ñëw appliqué def li ñu war a def. suñu borom ànd ak ñun may ñu ndam ci kaw Boy Diakhao Boy Diakhao a soxla six points yi da ko a. six points yi fan la koy jël see moom instant moom mooy mbuusu ndox ci kalaaf bi moom fi mu toll xam nga rek man moom laa waroon tëjee yàlla def ma ubbee ko amul solo dañuy ñaan yàlla suñu yoroon. sutura bi ko favori ak Doudou Sané. ak Garga ñooñu kenn du favori ñooñu kenn du favori xam nga rek. poul benn Garga 2 rek moo fi nekk comme favori ndax moo ñu jiit si làmb waaw loolu dañ ko koy nangul mais buñ dajee moo xam lépp dëgg la. yaa mën gargade. waaye man damaa xool ku dul gargade yow wér nga yow man xalaat kenn si làmb. ah yow tamit. gargade mi ndox la rek kii passé nii yaa bëgg a xam. billaahi mais maa ngi ñëw de Kaldu. waaw. maa ngi ñëw mbax ma amoo ngi nii. a ngi maa ngi ñëw de. mais innovation bi. waa mais waaw costume ngeen laal de. nu mu demee noonu. monsieur le maire yegg si na. ubbil ma ma wàcc. laay laay la le maire. yee eh, monsieur le maire njaga doole. Eh, yee borom amoo kàtte ngi noonu. xoolal blanc bi ci biir. cay borom amoo siise ngi nii. Ah, xoolal man lii bi. El Hadji Ndiaga doole mu baax mi. Eh, ah. Ndiaga amateur yi nag da nga naan tapet nga de du dawal combat bi ay eh, moytul. li ñuy waxatee ngi nii. ah. ah nga ne. amateur yëpp nee na da ngaa daw. non dañuy waxuñ dëgg xam nga ni. xam nga ni Ndiaga du daw. man ku xam sax xam ne man aw may tànk may dawee quoi. lu war a am nag bu ñëwee jax bi day nangu. dogal rek xam ni ñëw na pare daal da suñ kaw. man li ma gën a nag baaxul kaw mais mu man damaa wax ba keet daw sama kaw maa biyoon du ma wax. xam na koy defal affaire nee na ba mu jaaroon ak yow arène la bëgg arène nationale la a si biir dina kan moo daw man maa wax ak yow de tey ñetti nit laay signatural maa ngi ñëw si biir ñetti nitu lan kenn gi dama ko xeeb kenn gi dama ko xeeb tey la final bi ah baa ma kenn non affaire la dañ bàyyi noonu salaamaaleykum sama gars ziar naa de. Ndiaye Tine a ngi noonu mbokk yi. Eh. lamb lamb xaaral lamb xaaral ma jël Ndiaye Tine ma jël sa xaaral ma jël Ndiaye Tine. non Ndiaye may une minute Ndiaye nuyu nañu. xëy nañu la. si la ngeen sant yàlla bu baax. mais mais tey mel ni tey yéen ñëpp Gaston production parce que dañu laalal de. ah waaw loolu mooy li war. Mm. Gaston moom xam nga ne chaque jour fu muy génn. waaw mm. ah, noonu la demee. Ndiaye Tine la waaw. amul leneen lambaloog moo leen laaj lambaloog. waaw ziar naa ko dama nekk si tournage xaaral. Ndiaye mënu ko dem. ñëw na. commencé gul ñëwagul. sa adversaire ñëw na mu si biir ok la. na yéen yéen ñaar dafa am fu ngeen jugee. tey làmb ji moom mooy loolu noonu la demee noonu la demee. nee na six points yi da de. amul benn problème yàlla baax na. tey bu ko lépp a ngi ci kanam. Ah. non non <laughs> jaay ci na ngeen noonu mbokk yi salaamaaleykum. wala bu baax waxuma lay woyam saa yu lépp laa lay wax dama ne ba mënee bëre. waaw xeex coono la ci yow. waaw noonu la demee nag. mais Aliou Aliou Seye moom foo jaaru xeex ak moom. ba tey déggoo li ma la man daal ndam moo ma intéressé incha allahu rabi dinaa am ndam. est ce que dina yomb sa diggante ak Alioune Seye. waaw mais taxawal lu yomb amul si àdduna àdduna ku bëgg lu yomb xam nan def. Mhm. da ngay dem tëdd sa armée li fële. Mhm. waaw noonu la demee. ci bi avant muy taxaw dafa am beneen adversaire bu ñu leen wax demoon nga sa yaakaar naa ba ne dootoo la wooyee diggante ak Alioune Seye. loolu avancé na avancé na damay am droit rek ñëw jëf di jëf instant jëf moo fi dese quoi mhm. parce njëkkee quoi. waaw mhm. ah, soxla woon fii quoi. non déggoo li ma la wax saa soxla ay soxla ñaata soxla dama na. waaw bii la mu wax. waaw du woon fii. Mhm. lii lu yàlla dogal la mu yëg si sama kanam lu yàlla dogal la mu yëg si sama kanam mhm. kon na mu war a ñëw rek appliqué dem sama yoon man échange wax waruma am lu ma war jëf keroog dama ko jël fekk écré muy tàggat yaram Maka Lidou ma ne ko Quench mi nga jël ndaanaan la pour mu am combat problème la ndaxte lépp li nga xam ne dafa am si mbër ñi si moom hmm. mu ne ma lépp li nga xam ne dafa am si yow boo ko indee bisu làmb ji mu duma la daan xam nga yéen a gis loolu mais man gisuma loolu yëpp mais kon daa a bëri dañ koy a a xeex waaye dama jàpp ne dama jàpp ne fii kenn duggoo ko police yaay dama jàpp ne bëri boo ko mënee rek teewul mooy loolu comprendre loolu moo tax waaw kii moom kii moom ñu bàyyi loolu ak ko seen bis Coins kon si costume bi costume bi costume bi. non Maguette moo génnee fii. Maguette moo génnee fii amul leneen. aywa. kii kala waaye liiru ñaan. wàccal veeri liiru. liiru wàccal veeri. wàccal veeri. nuyu nañ la liiru nuyu nañ la wàccal veeri. liiru nuyu nañ la liiru. liiru wàccal veeri ñu wax la. Eh? deux minutes may ñu deux la. fay na la si lan ngeen nekk. sant yàlla a baax. nan ngeen ñëwee yéen waa Guédiawaye. son bi son bi son bi kii ñu son bi. sëriñ waaw hmm. baax comme ni ñëwee rek hmm. incha allah rabbi ñëw gunge suma rak ñëw di ko ñaan yàlla yàlla may ko tamlu seet hmm. ñun si léegi mënu ko mën a bëre soxlootoo leneen xeex du la jaaxal soxlootoo leneen de nee na ah, kon moom mhm. dafa mën a bëre trop kay nee na moom kay baa mën na xeex nee na moom dépassé na ay fu muy xeexee sax nee na mu mën a bëre waaw bëre fii la fekk baax mhm. xeex fii la fekk mhm. lu mu indi rek fekk fii lu gën a bëri hmm? waaw maa la wax nee neen bokkule woon sax si plan am parce que plan B yéen rek wax la ko neex yàgg na maa topp jox ma Aliou Seye jox ma Aliou Seye jox ma Aliou Seye moom kon waaw waaw yàgg na maa topp jox ma Aliou Seye kon su waxee loolu day wax la ko neex ne la kat dafa xam ni Alioune Seye saa yi bu ma jëlul du am adversaire moo tax mu jël. ah Alioune Seye de mi ngi ci roxam moom toog di liggéey. baal mi ngi ci roxam bi. ah tubaarikàlla macha allah yàlla ko yàlla fa cat.